No jërëjëf amiin waay amiin waay amiin amiin amiin amiin baax na Papa De gannaaw bi ñu la jaalee sunu yaay ji fi jógee tey nga ànd ak sa doom Boy Niang ànd ak sa rak ànd ak sa xarit Boy Niang ànd ak sa lépp mm. foo jëm ànd ak moom tey sa diggante ak waa Thiaroye ak sa diggante ki fi jógee waaw kooku suñu soxna la mooy papa yi yaayu Coly Faye numéro fii kër gi lañ daan nekk man mi déggoo Mansour Diop fi lañ daan fekk Pape Fall Timbili mi Samba Diagne Idda Fall Grand Mor ñëpp fi lañ dalte ak boo ñaa bu mag boo ñaa bu mag fii la nekkoon moom ñoom ñaar ci kër gi ñoom ñaar fii lañ nekkoon. di génn di bërëndoo di defandoo lépp ba ñun ñu fekk leen fa ak Papa Diop waaw ak Pape Diop ñuy ànd ak Pape Diop dafa rek ko Pape Fall rek timide rek yar ñu ñun maa ngi Mansour fu mu jëm fu ñu jëm ñun di bëre mbapat mu ànd ak ñun fu ma jëm mu ànd ak ñun jour bi may daal Aliou Diouf mbapat maa xaar yàlla fii ah moom maa ngi moom ñu ànd waaw boo ko laajee léegi dina ko wax chaque jour ñu ngi bu ñu jógee entraînement guddi moo ñuy euh, suba bu ñu xëy ñëw këram moo ñu jox ndékki ah ñu toog fi ba añ ba noppi soog a entraîné waat waaw ñun rek ñu ngi ñaanal soxnaam si yàlla na ko yàlla yërëm te xare ko àjjana di ñaanal doomam yi yàlla teg yàlla teg si doom loxo waaw parce que Coly ak ak doomu papa yi ak seen yaay seen yaay dëdd mu leen dëdd yàlla doon xéwal si ñoom. si barke yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ngay dénk njaboot ji nga xam ni bàyyi nañ bàyyi na leen fi xale yi dem gisuñu nday waaw lan dénk njaboot ji waaw muñ muñ ndax kenn du fi des kenn du fi des ñun dañu ñii dañu muñ euh, euh, mu ne dee sax day dee bu reyee ba amatul ku mu rey yàlla yàlla na ko yaa si des kon li si des mooy muñ ànd yàlla xam ne yàlla lu mu def moo gën ndax ñun ay julli lañu ay jo ay jaamu yu xeebu lañu te yàlla mooy borom lépp ah ñu ngi ñaanal daal julli di fi yéen di julli àdduna yëpp yàlla na yàlla yërëm te xare na àjjana jégal na seen bàkkaar di leen ñaanal yéen presse tamit yàlla na yàlla taxaw li ngeen si bëgg yàlla ko yàlla yàlla yàlla na ko yàlla def si barki Seydina Muhammad sallallahu waaw waaw njaboot gi dénk leen jub rek jub parce que Pape Fall na njabootam moom sonn na seen njabootam te li mu def nii su ko yàlla jël dafa neex dem di di liggéey pour jaay pour dimbale sa njaboot pour dimbale sa njaboot far oto fekk la ba fër la ah loolu loolu ak cant la te tey boo gisee dëj bi rek ni mu def te Lamine muy euh, Modou Lo numéro deux foo ko fekk moom Boy Niang la Boy Niang yàlla na ko lu nekk comme ñun la woon ak papam moom it noonu la ko def collègue yi colifay même chose colifay bari moo bëri day ñëw si man wax man ñëw ñu toog maag mu ñu wax waaw xëy na nag ku ju ku lu ku ku ku lu may sa bopp loolu yàlla may jëlal waaw ñu ngi leen di gën ñoom presse yëpp di leen ñaanal rek yéen ñaar ñi waaw yéen laa gën a xëccu nag ñaanal leen parce que moo la ànta sama waay la waaw mais maa ngi ñaanal ku mel ni euh, Dembale mm-hmm. ñooñu ñëpp presse bi yëpp mm-hmm. di leen ñaanal presse en ligne ak presse ak lépp ñu ngi leen ñaanal li ñu bëgg si presse yàlla na ko yàlla def te yàlla nañu yàlla may jàmm te may ñu ñuy dëggu saa su nekk ndax alaaji ab nee na dëgg mm. yetu kal la mm. bu nekkoon yetu kal ma dóor ko si bopp alaaji ma ànd ak yàlla waaw loolu si ñun loolu ñuy topp di leen sant di leen gërëm di gërëm tamit sama doom ji xam ne moom doomu Serigne Ndiaye la <laughs> kon presse mu ñëw jàppale ma am doomam boo xamante ni nag moom caaro de dëkk waaye dafa féet ak man muy Lamine lax kuri kooku man lay ànd ak guddeeg bëccëg gépp ba ñuy commencé maa ko ba ñu nekk nii ñu ànd ak man di jàng bëre ba léegi bëreetul muy man donc loolu moo taxoon nag ñu ñëw ak kuri suñu frère ak bas ak njaboot gi yëpp daal ñu ñëw boo ko ñoom tiis bi di leen jaale bu baax a baax di jaale waa caaro géej ah, ñu gis ne ñu gis ne waa caaro géej ñu gis ne Boy Niang da def acte boo xam si ni acte bu rafet la face à caméra ñu gis ne Boy Niang da nga def acte bu rafet da nga def acte boo xamee acte bu noble la da def yi fi jullit ndax ñun journaliste yi dëkkuñu rek wax lu bon parce que ñemewuñu ko mais bu ñu gisee ku mel ne yow Boy Niang li nga def nii tey nga gis ne ki nga xam ne mooy kolifay dafa am naqar ngay ànd ak rakkam guddeeg bëccëg subaa ngoon tem ba seen yaay daanu ci xare daanu ci xare tey nga bokk ñoom naqar bi ndaanaan nga champion nga waaye gis nañu si champion yow doo nga ñëw tey si sarax si gisaguñ ñu ne ñi si des nga def lu rafet. kon acte bi nga def. lañu lay lañ lay kalaameeg Sénégalais acte bi nga def. lañu lay si loolu la ñuy wax bëgg a waxtaan. ak yow waaw sant yàlla rek. ñëw naa Siteu ñëw na mbaru Zallam Sarr yi mbaru Thiaroye Géej ñëw na ñeneen ñu ñëwul tamit xam nga tànk tamit ni ñëpp seen tànk oyof ñu daal waaye bu ñu ñëwee rek daanaka ñëpp ñëw nañu ñu ngi ciy sant yàlla bu baax man nag dama ñëw sama ñëw bu spécial parce que man laa ci kër gi waaw di man maam am bànneex ma am naqar ñoom dañuy ñëw ànd kook man donc tamit ñoom bu ñu amee naqar dama war a ñëw ànd ceeg ñoom daal loolu mooy àdduna daal. sa diggante Coly Faye. waaw Coly suma frère la maa sama papa ak papaam la woon loolu démb la waaye Lamine mooy sama féete. mooy Lamine waaw moom mooy sama féete moom laay àndal mu rax Coly moom laay àndal guddeeg bëccëg ñëpp xamee nañu moom. donc daal maa leen ñaanal seen yaay boobu suñu borom xare ko àjjana muy suñu yaay boobu bu baax bu ñeme njaboot. waaw suñu papa tamit suñu moom bàyyi ko fi ba si daal ñu ngi sant ñëpp di gërëm ñëpp daal lan ngay dénk njaboot gi waaw fi bàyyi waaw sax yaay bi dem na ñu jàpp pa bi jàppale ko lu ñu am bokk moom te ñoom ci lañ nekk daal ñu ngi sant ñëpp